du ñu wax cest à lu fu toll ñu ngi wut wax fu ñu toll ñu ngi wax mel mel mel mel liggéeyu xalaatuñu waxuñu dëgg lu may kàcc nar sos pour toj bopp nit ñi pour falu ko ku jooyu den falu xanaa duñu duñ fal ay ferkat ay sàcckat bàyyi ko mel ne El Hadj Diouf seen député du peuple l'homme du 23 juin di fal ay ay ñi nga xam ne day dox ci kaw maanu nit ñi di rey nit ñi taal kër jàmbur lijaay jaay doole nit ñi naan addiye ko joxe ak ki ko ki ko jël loolu crime la addiye kenn war ko joxe Ousmane Sonko bind na ko ci livre bi sëñ Mountakha maa la yëgal loolu ay yéen waa Touba. merci merci de bien vouloir